donc mu ngi vingt heures vingt une minutes moo jot fii si arène Adrien Senghor 35 heures sànq si dem final bi kii di Thiaka Faye moo daan Elimane Diouf Pape Maron daan ki nga xam ne mooy El Hadj Thiaw di arbitre farañ moo sifflé final bi diggante Thiaka Faye féete seen càmmoñ ak ki nga xam ne moom mooy euh, seen ndeyjoor Pape Maroon sëgg di yeeru ndax dafa bëgg a dem ndax daf koy nax ndax dafa bëgg caaka sëgg dooleem bi wàññeeku wala endurance am ak lu mën a xew mu ngi sëgg jël uh, loxoom bu loxo loxo ndeyjooram teg ko si moom mi fete suuf moom mi gën a moom la gën a moom mi fete suuf gis nga kii di Ndiaga Faye mu ngi waajal sa sa gën a waaye mënul tolloo ak ki nga xam ne moom mooy waa Maroon ndax li nga xam ne taay bi la mu koy door ci bopp gis nga Ndiaga Faye taay bi ak waa bi kat macha allah tax na ba sëgg bañ ne ko def ay. yàgg waaye mënta tolloo ak ki xam ne moom mooy Pape Maron ñu ngi roofoo tegante ay loxo ñu ngi roofoo tegante ay loxo gis nga Pape Maron ñu koy jéem a bëreloo ñu koy jéem a bougeloo ndax poids lourd boo ko bëggee sonal da koy bàyyi bu bougé waaye bu taxawee rek statique taxawee rek benn place nga daan ko mbër kamil la xam sëgg ba gis nga mu na tànk Caaka Fay Caaka Fay jàpp ci bopp daal di rocceeku ñu ngi léewatoo léewatoo Caaka Fay ñu koy tee ci bopp waaye Bambaroon mu ngi jéem a rasu ngi jéem a daw di am lu sax la xam ne sëggaay bu bu métti bi bu yàgg bi mënu ko gis nga mel ni Thiaka Faye mu ngi koy topp Thiaka dafa bëgg a ci kawam waaye kii di Pambaron xam na ne bu asaanoo combat bi rek mën na bay jig gis nga léeg-léeg fooy mu attaque yoo xam ne léeg-léeg ko gëm 1er décembre 2019 Saliou Diouf ak ki xam ne moom Modou Diouf tegoon tey journée bi tegoon fi 1 million kii daan war a am li nga xam ne moom kii daanu ci final bi am moitié bi mooy 300000 gis gis nga ko gis nga ko gis nga ko gis nga ko Pape Maroon ko jéem a juumloo koy jéem a juumloo dem na ba ki nga xam ne fay teg ñaari côté oom yi ci suuf donc 600000 la pour le vainqueur 300000 pour le finaliste malheureux mu des 100000 si 1 million bi boobu ñu koy séddale ñaari demi finaliste yi ku nekk am 50000 50000 muy Elimane Diouf ak El Hadj Thiaw Sow Pape Maroon Thiaka Faye jàppante bopp léewtoo bu tarul jàppante bopp naxante Caaka gis nga ko moom ay action am gaawul dafa yéex gis nga gis nga jàppante nañu Caaka Faye gaawul li mbir dafa yéexi mbir dafa gaaw dafa yéex Caaka Faye poids lourd la boo xam ne jàppul tàngam Caaka Faye jàppul tàngam Caaka Faye jàppul tàngam ngi suuf Caaka Faye daan na ko nga mooy kon nag ki mooy euh, Saliou Diouf moom moo tegoon tey adresse Ngor septième journée euh, adresse tey tegoon fi un million moom ak xaritam bu ñuy wax Modou Diouf Saliou boo tëggee làmb car macha allah woote nit ñi ñëw stade bi fees woo yi neex tëgg yi neex ban yëg-yëg ngay ngay am. Euh, damay gërëm yàlla gërëm sama ñaari waajur di leen ñaanal yàlla leen yàlla xare àjjana. amiin amiin euh, vraiment yëg-yëg bu mag laay am. Mhm. kontaan mhm. parce que woote. ñu wuyu si la. dafa neex. te nit mun naa louer bâche louer seize ñëwee nit kenn mënu ko louer. du donc loolu yëg-yëg la ci nit yi ma leen di gërëm di gërëm amateur yëpp képp koy amateur ñu ñëw ak ñu ñëwul yëpp ma leen di gërëm waa wàllu musique be bagage yi naka la demee Saliou euh, musique yi moom di commencé ba kër muy jeex yaa ngi door affaire rek waaw loolu pour aar mbooloo bi la rek pour aar mbooloo bañ kenn gaañu. bañ kenn euh, am problème. Mhm. loolu rek moo tax ñu koy def. ñu koy def euh, cosaan la. Mhm. Euh, Adrien Senghor cosaan la. dañ mhm. koy xoolee comme dëkk ba rek suñu tegee lamp Euh, suñu tëggee lamb euh, dañuy aar mbooloo bi. Mhm. ba ñëpp ñëw ak jàmm. ñibbi mhm. ak jàmm. d'accord kon nga nga xam ne effort effort la rek. Euh, am ku ku fi gaañu muy jegaan ngom. kooku tam loo koy wax. kooku ma koy masaw rek. ma koy masaw vraiment xam naa dinañ ko seeti sax. dinañ jéem a seet fan nañ teg. waaw ñu jéem ko seeti. parce que vraiment naqari na ma. bu mu amee dama xaw a dama xaw a kii découragé. Mm-hmm. Euh, parce que loolu euh, mosul am si sama lamb. dëgg la dëgg euh, soo amee tamit ñu koy gërëmee yàlla rek. ndogal la parce que mënoon na ëpp noonu. dëgg la ndogal la quoi. dëgg la dëgg la voilà kontaan nañu merci Saliou. merci beaucoup